5M TV Sénégal. mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm. cuuraay la ma ngay wéy di gilli di xeeñ ña nga xam ne ñoo daa sosalaate ak tuumalaate ñoom nag cuuraay la mi ngi leen di xeeñ benn par benn ba ñenn ci ñoom ña ngay weeru benn par benn ñu ràññee ci ki nga xam ne daal moo di Kalbun Sall fan yi gis nañ ko rek mu génnal xale bu jigéen bu ñuy wax Adja Caare Jaw ba ay coow xew ca moom nag daal dañ koy tëj kenn ku ñu ràññee loolu ñu koy wax Fouta Tampi mu di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mi nga xam ne daal mi ngi saaga Ousmane Sonko di ko wax ay kàddu yu ñaaw wax ay kàddu yoo xam ne daal ku ko dégg rek taf sa nopp loolu nag nekk loo xam ne lu ñaaw la moom nag daal nay génn rek di jégg jéggalu ki nga xam daal moo di Baye Mbaye MC Niass ginnaaw bi nga xam ne rek daana ko yëkkati ay kàddu jëmale ko ci moom ay kàddu yu ñaaw yu salte mu mel ni ki nga xam daal moo di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi cuuraay la xeeñ na ko ginnaaw ne daal mi ngay weeru doom ji mi ngi koy weer dem ci télé yi di koy weer di ko wax la ay kàddu yoo xam daal yu ñaaw la di ko jëmale ci moom loolu nag nekk loo xam daal ma ngay feeñ benn par benn di jóge ci doom moom mi nag di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ginnaaw bi nga xam ne rek invité na ko foofee ca Sen daal na yëkkati ay kaddu jëmee ko ci nga xam daal moo di Baye Mbaye MC Niass ginnaaw bi nga xam ne rek ci ay kaddu yu ñaaw te ko ci ab deram di ko wax loo xam ne lu ñaaw la ay kaddu yu salte yu ñaaw ginnaaw bi nga xam ne rek yëkkati nañ ay kàddu ko ci ab dërëm nag ñu bëri ci ay sénégalais ak ñenn ci ay taalibeem ñu koy mettlu nekk loo xam ne nag nekkoon lu doy waar jamono jooje Pape Issa mi nag mi ngi jégalu nag di wax ne daal eh, lépp lu nga xam ne xam ne ne moo tooñ mi ngi jégalu Sénégal yi di wax ne nag moom nag APR moom ma ngi sig sàkk ci toog fa ak ñàkk faa toog Issa bi moom mi ngi sig sàkk ba xam ne dafay toog wala dafa toog mu mel nag ki nga xam ne daal moo di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi daal cuuraale xeeñ na ko mu nekk loo xam ne nag instant bi nag jamono ji moom la ñëpp di waxtaane mu di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mi nga xam ne daal ma ngi jégalu askan wi di jégalu ki nga xam daal moo li Baye Mbaye MC Niass voilà kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal ngeen di di abonné di partager vidéo yi jaa ngeen jëf ci topp gi ak safa gi ak nama gi jaa ngeen jëf. 5M TV Sénégal.